bisimilahi rahmaani rahim barkeb borom Tuubaa asalaamaaleykum mbokki taal bi yëpp ñu fas yéene ñëw ak yéen ci bis yi nga xamante ni mooy war a am ci semaine bii ñu nekk ñu tàmbalee ko ci guddi maam Cheikh Ibrahima Fall bi nga xamante ni moom la kuréelu xamante ngir maam Cheikh Ibrahima Fall di amal fee ci Géejawaay ci ginnaaw station Touré bi ci wetu école bi moom jàpp nañ ko mardi 5 décembre incha allah rabbi à partir de 20 heures. ngontu tànneef yi nga xamante ni moom la ñu amal saa su ne ca géejiwaay ci àll bu njëkk ci weer wi di ko jagleel waa kër Sëriñ Tuubaa yi nga xamante ni ñoo nekkoon ak Sëriñ Tuubaa moom it muy ngontu alxuraan ak xasida bu ñu leen di jagal ñu koy jàpp moomit ci euh, mercredi 6 décembre incha allah ci bàyyal suñ mutulaa bi muy ngont bu am solo boo xamante ne xolaan la xasida jagleel ko waa barsax yi ñu ngi ciy xaar ñëpp li nga xamante ne moo jëm ci guddi àdduna bi nga xamante ne fas yéene ko amal ci kër seen Tuubaa gi ca Pikine ànd ko waa Hizbut Tarqiyyah moom it jàpp nañ ko ci jeudi 7 euh, euh, décembre à partir de vingt heures muy bis boo xamante ni tamit ñu ngi ciy séntu ñëpp rek daayira Pikine yëpp yokkoo Pikine yëpp kuréelu Pikine yëpp ngir dara sunu gan yu tedd yooyu muy waa Hizbut Tarqiyyah ci ngontu alxuraan ak eh, xasida bëggalante ci xasida yi bëggalante ci ay waxtaan yu jëm ci sëriñ bi ñu ciy dolleeku ak di ci jëriñ moom it jàpp nañ ko ci jeudi 7 décembre à partir de vingt heures ci Kazu Ndiaga bisu xasida bu ëxlu xasida euh, jaalibatul maraxib bu Touba Massalikul Jinaan moom jàpp nañ ko ci euh, dimanche dix décembre euh, ca Cité Port en face Massalikul Jinaan moom it ñu ngi ciy woo ëxlu xasida gi yëpp ñëpp ñu ngi leen ci woo bisu xasida bi nga xam ne tamit maanaam mooy bisu arxuraan ak xasida ak tari bi nga xamante ni moom la ñuy amal ca daara Massalikul Jinaan moom it jàpp nañ ko ci Euh, samedi ak dimanche 9 décembre ak 10 décembre te daara Massalikul Jinaan sa ñetti mbaar ñoom it ñu ngi ciy xaar ñëpp waa alxuraan ñëpp ñu ngi leen ciy xaar ngontu maam Cheikh Ibrahima Fall bi nga xamante ni tamit ñu ngi koy amal fee ca Touba euh, Thiaro yi moom it ca pénc ma jàpp nañ ko mu tombeek euh, le samedi 9 incha allah décembre ci Touba Thiaro yi ca penc ma incha allah waaye tamit sëriñ Mamoor Mbacke mooy woote bis bu am solo muy bis euh, waa waxtaanee cant gi nga xam moom lañ fas yéene amal fii ca maanaam wetu këram Euh, muy bis boo xamante ni bis waxtaan la ngir jàpp cant yi nga xamante ne moom la ñu fas amal incha allah ñu siy woo ñëpp moom nag mi ngi am dimanche 10 décembre euh, ca kër Serigne Mame Mor fee ca amokat incha allah ñu ci xaar ñëpp kon loolu mooy yëgle yi nga xam ne bëgg nañ koo jàllale képp koo xam ne am nga ci bis wala xibaar boo bëgg a jàll boo wootee ci numéro yooyu suuf incha allah dinañ ci mën a jot dugal ko ci liggéey bi ñu sant ñëpp di ñëpp di yàlla nañ ci am tawféex ak ndam ak ngërëmal sunu borom àdduna ak àllaaxira barke ba mu tax xasee jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu